leen ziar ah, di baalu ñëpp àq tey nag ñu ngi fii si yëmbal Farba ah, ñëw seet si Alliance Birame mu nekk journée boo xamante ni Fallou Ndiaye Ndiaye production mu nekk journée des espoirs combat na nag ñëpp xam nañ ki ciy bëre Giro ak Ndiaye Tine Alliance Birame ak Bécaye mu nekk combat boo xamante ni ñëpp ñu koy xaar Euh, gannaaw nag ba ñëwee ci open press am fekk fi ay champion ah di nuyu Baye Tafatine a ki nga xamante ni moom mooy Baba Jaxal mu yóbbaale mbër yëpp ah ak sama xarit bu doon xuloo fii Lamina ah, ñu ngi koy ziar bu wér a wér ah, ah. ko lu dul jàmm jàmm moo ko gën ah naan leen ñun suñuy ñun seeni sœur lañ ndax ñoom bu ñu ñëwee ci open press mbëri ñoom ñoo fi indi mais ñoom bu fekkee ñoom ñoo ñu nar a protéger bëgg a xuloo ak ñu te man yëmbal laa dëkk doomu yëmbal laa te yëmbal laay représenté mu xam loola alliance biram maa ngi lay nuyu waaw ñu lay fay gannaaw baatu onze billah bismillah inna wali yàlla jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba eh, yàlla rek ay dëgg te mooy borom dëgg moo fi jox Bamba dëgg ba tax mu daal di signé Bamba ne wasalaamun halal ma ni tabalu daa jërëjëfe Serigne Touba waaw ah, gannaaw bañ sante yàlla julli si yonente bi di gërëm suñu ñaari waajur di gërëm suñu Serigne suñu wasila Serigne Basirou Fall alxuraan di siyaare xalifaam bi mu fi bàyyi muy Serigne Gunda Fall xam nga sëñ Gunda Bas alxuraan di siyaare Serigne Makhtar Mbacke Noreyni bu baax a baax di siyaare Seydina Ousmane Mbacke Noreyni di siyaare maam Cheikh Fall ibn Cheikh Ablaye Fall Ndar xam di siyaare tamit bépp kilifa diine bu fi nekk di siyaare njabootu maam Limaamu Laay bi xam nga njabootu Baay Laay bi xam di siyaare ñëpp di si El Hadj Malick xam nga di siyaare sama benn sërif tamit sama benn xarit muy Cheikh Samsidi borom Casamance binaa ko sërif maa ngi koy siyaare bu baax a baax a baax a baax waa binaa ko sërif maa ngi siyaare ñëpp di leen wax gis naa taxawaay bi gis naa taxawaay mel na ne man Casamance laa dëkk binaa laa dëkk amul luñ def si man wallaahi azim dama fay dem du ma yor dara moom moo may envoyé passe vol la may jëlal moo may defal lépp Serigne Cheikh Samsidi di ko siyaare bu baax a baax a baax xam nga di siyaare tamit Serigne Dame Diouf ak sëñ Abdoulahad Diouf maa ngi leen di siyaare bu baax waa Touba ñoom tamit amul luñ dul daj si mañ di siyaare suma gaay yi nii ah suñu benn kër muy yoro maa ngi koy siyaare bu baax a baax a baax di ko wax am na yéene si man lool lool yoro bu Jali Birama Coor di siyaare waa Igri Jali Birama Coor ñëpp nag ku lim rek juum xam nga di siyaare waa yëmbal mbooloo di siyaare képp kuy doom bawol bawol tamit maa ngi lay siyaare di siyaare suma ñaari rakk yi di siyaare baaba di siyaare tumaane Baye Tafatin Cheikh Baari Xaysar ñu yóbbaaleel ma mbër yëpp xam nga caata yëmbal tamit ma koy ñaanal parce que ñun yëmbal lañ dëkk non caat dafa am combat combat boo xam ne dañoo ñor non ñun garaawul ñu nekk xam nañ ko mais caata yëmbal ñu ngi koy ñaanal moom ak ama suñ borom may leen ndam li ma wax ni dama ñor parce que tamit day dund li may dund maa koy ñaanal baax suñu borom may ko ndam di siyaare tamit waa Farba ñëpp ah di wax gis naa rafetaay bi. Ah. noonu la demee. yaa ngi nuyoo gars yi ne la ñëw ci combat mais ah, ah. euh, sa diggante ak ki nga xam te ne moom mooy Bécaye. wax nañ la ko woon mais wax waa du bari wax. démb def na open press dañuy ñëw ci droite au but bi. booy bi ñeme na la trop. heure bu waxee rek danaan la. man fu mu la laal daanu c'est que alliance Birame man damaa xamul nag wax dëgg yàlla Bécaye lan la gis ci yow laa waaw mais lamb la rek lamb la rek mënut a fexe fexe fexe ba weex la ba mu weesu làmb mais fan ma yàlla yàlla xeeb dool yoon yàggul samedi mën nañ na ñëw na ba pare xam nga ñu ngi waaj ñu ngi waaj ak suñuy mbokk te xam nañ fi ñu bu baax a baax a baax nag wax dëgg fa yàlla xam nañ combat bi lu mu ñu war a mën a apporter bu baax bu si tur bi mais si liñ jógee mais yàlla na yàlla xeeb doole daal xam nga ñun bu ñu nekkee si dynamique bi ñu nekk xam nga ñëw bëri daanu ñëw bëri defaa sans verdict bëri waat daanu ñu bëri ñetti combat yoo xam ne mën nañ ne ñaari defar lañ si am benn sans verdict boo ñëwee di wax rek mën nañ ne a wax di wax rek mais ñun suñu wax jëf la war a te yàlla nañu suñu borom bàyyi ak suñu ba jour bi rek te bu ñëwee dinañ jëf yé Bécaye waaw Bécaye sax Alliance Birame ñu gis ni comme ni ko Fatma joxe Bécaye dafa la ñeme trop nit ñi bëri amateurs yi bëri naan ay alliance Birame di ko dugal si Bécaye lan moo la dugal si Bécaye waaw Bécaye daa dagg licence wala daggul licence mbër la man nekkuma fi di taamu tamit Bécaye dafa prouvé yoon la ma bëreeg moom munu ma fi nekk naan ñii laay bëree làmb da ngay bëgg ñii ñuy bëgg ñii munu ma bëree daanu bëri waat xam nga am sans verdict bëri waat daanu ñëw fi naan damay taamu naan kii laay bëree ñu bëri ñu ngi naan may loxo mais mayu ma ko loxo dafa prouvé nag yàlla mujjee daan suñu grand dafa prouvé dafa bokk si làmb dama war a bëreeg moom mbër la comme mbër yi mais nag ma ko jàppee li mu yaakaar na ko yaakaar ba bisu rek yàlla bu mu ñëw di doo ko comprendre. ah waaw nee na moom moo ay ci amul morom bawol bool yi dañoo bëri xam nga mbëru bawol bool yi am na ñoo xam ne nekk ñu kër bawol sax ay bawol bool lañ xam nga yàlla na ko yàlla suturaal bañ jàppante. bu ñëwee ci cadre bëre bi dañ ne ko alliance biram dafa mën a bëre. mu ne moo la dàq bëre. moo la dàq xeex. mu ne le fait mu jël la c'est day ñëw rek pour jaar jàll. loolu lan nga ci wax bi vrai que nag am na loo ma waxoon nee nga ma combat bi du wax mais nag il faut tamit nga tontu ko wax ak waaw loolu laa lay waxaat nii rek xam nga moo daaka bëre moo daaka xeex moo daaka daan na jël lépp ba bis bi non signature ba jour ba combat bi taxaw n'est-ce pas ñu ko waxee woon na jël lépp ba bis bi oh, Fatma samdi samedi bu doon làmb ji combat yëpp benn ndam lay doon sama ndam lay doon incha allah foo ko teg fu wóor laa lu leer laa lay wax nii yàlla baax na dañu fi yoon bàyyi ba bis ba teg ci man cadre musique loolu si moom nga koy wax man cadre musique loolu moom nga koy jëm parce que moom moo jël combat bi moom moo jël combat bi teg ko si musique mais lépp lu ñuy wax si bëre yéen ñii ay reporter ngeen xëy na mënoo leen fee nekk jotaay mais ngeen xool ñi ma bëreel ak ñi bekaay bëreel bekaay bu dee bëre maa ko dàq bu dee xeex maa ko dàq bu dee fit maa ko ñi ma daan xaajul ba leen daan mais lamb moo tëre bi xam nga day am yenn yoo xam ne mënut a ñàkk si ndaw xam dama ñëw bëre sama premier combat daanu ñëw tegle sept victoire di may daan wës jàmbaar année boobu trois combats laa bëri trois xam nga ñëw bëreeg bébé bis mi bébé bis mi daan na ma ñëw bëreeg Bulldozer ñu dem sans verdict ma ñëw bëreeg caatu ngewal mën nañ ne caatu ngewal bokk na si li ma dimbali si mbër non dimbali na ma du ma ne moo ma def mbër mais dimbali na ma ndax chaque jour damay caatu ngewal daf ma jàngal ne àdduna nit doo ñëw ne maa ko mu ñu laa lay def farfoos ba dama xam ne wax dëgg fa yàlla ba ma daanoo man xam naa ne maa daan sama bopp du dara lu ma daan man maa ñëw ne ko dama lay daan farfoos dama lay daan farfoos si ñëw bëre mu jeex. kon diriger bi ngay wax ba tey yow yaay diriger ba Bécaye nee na du nangu ko diriger. moom bëre mooy xeex nee na yow da ngay ñëw rek. man daal xam la laa xam bu ndam doon am man naa koy am te incha allah maay am ndam. waaw diriger yooyu yëpp garaawul waaw. waaw moom laa la wax na jàpp temps rek na jàpp temps mais bu ndam di am fànn. yéen ci barrière yi ngeen yem ngeen naan ay loxo. gars yi jàpp leen si rek ñu wax mu jeex ko waaw xam nga mais Fatma xam nga laa la mën a wax na diriger na xeex na def lépp mais ndam incha allah yàlla yàlla xeeb doole laa la wax. li may wax nag teguma ko si mystique teguma ko si mystique teguma ko fenn mais daf ma wóor ne man ak Bécaye bu yàlla defee jàmm rek wallaahi azim gisuma lu may lu ma kale si moom gisuma bëre boo xam ne moo ma kale si Bécaye non Bécaye du bëre. Bécaye day muusante yi muy def ni yëpp gëmu ko non Bécaye du xeex Issa mus nga ak ba bëri naa bi mooy sama douze combat ma dem ardo waaw loolu bëgg naa ko bëgg naa ñam loxo médecin tamit xam nga di bëri di dagg licence gaan kenn du tëj génn sa deret neexul Fatma non no non xam naa yow maa xamul da ngay dem sa gàlle boo demee sa gàlle ñoon Bada wala ñoon sama grand Alioune Sèye Junior maa ngi koy nuyu waale baax ñoom dinañ la wax maay kan chaque jour damay yéen sëriñ bi moo ma dimbali Fatma booy bi signature ba maa ngi koy wax keroog daa am affaire boo xam ne da koy ñor di man gëwuma loolu noonu wallaahi naa si man aw ma saas interview fenn am na yoo ne nag wax waxaat bëri wax lu ko waa du ma si nekk di si woon man ak moom si mbedd li ma lay wax nii muur na alxuraanu karim ma ne ko Bécaye ni ngay jaar ni lay jaar te moom moo la gën a xam loolu non xam nga micro wër la ngay wax lu neex dafa yomb mais ñun xamante nañ suñ biir ñun dofuñu Alliance daa am lu mbër lu raar loo xam ne tey mbër day nekk ci tolof tolof nekk ci ay buy ñëwaat du mel nii tey ngay ñëwaat dëkk bi yëpp génn taxaw la nii lan nga leen wan ba tax yow nga nekk ay tolof tolof ba xam nga man la mooy sama àdduna man lan laa gëm ak li may si làmb ji yàlla ma ko am musuma dajeeg samay mbër sax samay adversaire préparé mbër musuma ko def laat wallahi azim ak li ma ut si ngërëm a Serigne Touba yàlla na ma Serigne bi woon naaw bu dee mus naa toog si Serigne tudd mbër. bu dul kiñ ma fay fay ko yàlla bu ma amati ndam si làmb waxuma ñi pour samay raq yi ak ñeneen de mais pour si àdduna laa wax pour préparer mbër sax du ma ko def man bu ma man xamal laa gëm ñun mun nañ fi nekk njëkk bari nekkul ñooy doon champion kenn xamul kam mooy doon kenn moo tax ku si nekk yéene sa bopp li nga yéene ñëpp man bu ma essayé na samay raq réussir man loolu laa gëm si làmb ndax kenn xamul kan la da ngay ñëw ñu yaakaar ne yow la fekk kay doon mbër fii bëreegul sax man loolu moo tax xam nga na ñëpp am bambis rek xëy na gars yi loolu lañ gis si man loolu lañ ma yéene di leen ñaanal ñoom ñëpp tamit xam nga kuñ ne yow rek nañ jàpp ne yow ko quoi affaire bi moom ñun bokku yëmbal xam nga bokku jaaro yi bokku jàmm gën si kamba ñun ñëpp ñu bokku ndey bokku bàyyi parce que gars yi nee nañ doole mooy xam nga mooy doole xam xëcc jarul dara fii àdduna du dara mënoo fee xëcc ni dara loolu woon nit ki loolu la lay fool bu demeewul woon noonu barki maam Thierno Faty laat baal ba dimanche ba samedi commentaire baa ngi nii te wëlee ko eh, am rek. laat laat maa la wax lii sànq. waaw maa la wax lii sànq bégaay mën nañ ne man ak moom daje nañ daje dajeeti wax na ma waxati xam nga man buleet bu ma xam man xam ne làmb daan naa bëri li may bëri. daan naa bëree li ma daan bëree xam nga lu ma la wax kenn musuma xam si ay kebet ay waxante man bu leet sama ñaari combat sax may bëri di wax man jëf lañ ma dina a xamee te léegi maa ngi commencé sax wallaahi azim li ma lay wax nii mbalaguma keroog dama toog ñu ma koy wax ñu ne ma léegi da ngay nekk si média bi tontante te kenn xamewul ko Bécaye maa ngi koy ñaanal jàmm maa koy ñaanal jàmm bu baax ba bis ba waaw ah. ah. waaw waaw ñun moom mobilisation jaruñoo wax ñun rek ñoo fii seen mbër boo xam ne ñoo bëri suñu dernier combat ba pare promoteur génne xaalis wallaahi ancim Franc moo doon bëre grand combat laay wax grand mort bu passel ñuy dégg ñoom ay millions lañ leen fay man sama kase ma la ko waxoon da ngay reetaan promoteur bi damaa bëree pare mu woo ma bureau may dem bi may dem maag kii ñii ñoo ànd nees ak ngañ wallaahi ancim bu yëkkati xaalis bi weex tàll may ma ba pare ne man naa la fayal un an abonnement pour nga entraîner jo delloo ma ko benn biir Fallou Ndiaye jour boobu noonu wallaahi ancim sama agent Basir dama ñëw bu may tuus mu ñëw si man ne ma Fallou Ndiaye nee na da jox yaag Pam Gueye ma ne ko noonu bu ma bëri Pam Gueye non wéet naa si moom bu dee dëgg neex yàlla rek bu dee ak sa bàmmeel non xam nga ñi may woo sama booy bu dee dëgg neex yàlla rek non farba fii am nañ fi suñ benn papa Thierno Diop xëy na gisaguñ ko mais yàgg yàgg dina ñëw ñu ngi koy woo si combat bu baax a baax a baax non man moom la li ngay gisee nii man Serigne Touba la yaakaar man ñaaxuma fayda nekkuma si benn affaire chaque jour di topp benn si lu ñaata fayda sama papa Thierno Diop benn combat bëriwuma ñaari yàgg naa bëri xam nga jàppale bii nag desee raw bii ba ma la waxee mu mais ak lu may si ngërëma yàlla ma si am dara ñor na doon sax am wóor na maam Serap Fall mu dund si loo xam ne xam nga mais sëñ Tuubaa amul morom yee. alliance bi on dirait que ni ah, dafa am loo dund loo xamante ni ndeysaan. su ma mënee posé nu muy juraat. <laughs> dafa am loo xamante ni alliance. wax na ba bët bi taa dafa mel ni émotion la nañ ko daggan ah, woote oh, woote oh. woote waaw sant rek maa ngi woo boo yëpp maa ngi woo ñëpp di siyaare ko defal bàyyi daal wasalaam. ay pro wala ay folokaat